asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97 point 5 rawatina seen émission Euh, sociale tout la ville en parle samedi bu jot 10 heures jàpp 11 heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale tout la ville en parle fas yéene waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni euh, ñu yëngatu ci wàllum transfert d'argent am nañ ko ñu leen di woowee euh, prestateur de transfert d'argent gis ngeen coow li bari na ci xëccoo bi am ci diggante opérateurs yi wante tamit ñi leen di prestataires yi di ci jànkonteel ay jafe-jafe yu métti lépp ñu daal yéene waxtaane moo waral tey ji ñu dalal Khalil Ndiaye nekk euh, président bu réseau national des prestataires de transfert d'argent ak euh, coordinateur du cadre permanent de concertation des prestataires euh, xanaa ñuy jéggalu ci retard bi xam nga ni dëkk bi dafa xattaay xam naa moo waral suñu invité daal di tardé ñu ngi lay nuyu Khalil Ndiaye di la dalal jàmm di kontaan ci invitation bi ngeen ñu defal euh, bu am solo. Mhm. si thématique bu nga xamante ne wax dëgg yàlla intéressé na dëkk bi parce que thème la bu bu nga xamante ne. amul ah, pratiquement mhm. amul pratiquement benn sénégalais bu nga xamante ne tey jii du utiliser loolu ñuy wax les transferts d'argent. Mhm. te loolu nag seetlu nañu ah, depuis quelque temps il y de problèmes comme ni nga ko waxee nii euh, problème bi fi mu jógee. mën nañu jambaaraamu tuuma opérateur yi fi ñëw ak yi fi andi xam naa dinañ ci xuus. Mm-hmm. mën nañu euh, jàmbaaraamu tuuma état bi nga xamante ne rôle am euh, mooy réguler mooy saytu mooy xool intérêt doomu dëkk bi ak li war a dem si dëkk bi mais aussi euh, ñu leeral aussi que clients yi ñoo ngi si souffrir bu baax a baax mais souffrance boobu ñuy def jël ko. ñuy utiliser benn communication bu xaw a doy waar. Mhm. pour jël lépp këpp ko ci deru prestataires yi. loolu nag la ñu fas yéene bëgg leeral tey xamal leen suñu taxawaay lan la ci mhm. ak lan moo waral bouleversement yooyu yëpp yooyu Transé léegi yéen seen réseau bi naka la ñëwee lan moo tax ngeen euh, tegal ko Renapta ci boppam euh, ban at ngeen ko sos lan moo leen poussé woon motiver ba ngeen teg kuréel gi le waaw xam na en tant que président du Renapta du ma mën a bañ a wax si RENAPTA bu mhm. nga xamante ne kuréel la bu nga bu ñu créé woon en mille 2012 ah 2012 lañ ko créé fële si chambre de commerce nga xamante ne li ko waraloon rek mooy boobu opérateur yi fi nekkoon tey malheureusement déggatu si ñu bëri ñu mel ne ay wareeg yooyu ñoo fi nekkoon ñoon nga doon dégg mhm. Mhm. mais ñooñu tey jii les faits nous ont donné raison parce que ñu doon dénoncé ba tax taxaw ne ñu def taxaw seetlu andi régulation si secteur bi andi normalisation nit ñi dégluwuñu loolu nag ñun yàlla def ñu dimbali ñu am si ay preuve mhm. il suffit nga dem si net bi rek. Mhm. nga xool suñuy conférence de presse suñuy sortie suñuy boycott lan lañ doon wax. yooyu ñu doon wax tey ça s'est vérifié. Mm. Ah, au résultat bi ñëw na. ñëw na bu yàgg war yi disparaître na joni joni disparaître na te ñooñu c'était des fleurons vraiment yoo xam ne économie sénégalaise da ko doon ndamoo. léegi nag ñun mm. tey jii. Mm-hmm. dama bëggoon ñu xam ne dépassé nañu presque phase boobu parce que RENAMTA moo fi nekkoon jamono yooyu. Mm-hmm. entre temps il y a d'autres associations qui se sont créées ASATA. am na Jolank ay association yu bari loolu nag moo tax ñu ñu bàyyi léegi sax appartenance partisane boobu consacré aussi li ñuy wax le cadre permanent. cadre permanent muy CPCP. Mhm. nga xam ne en juin ñëpp gisoon nañu sorti bi mu fi def ba andi woon loolu ñu naan frais de service donc tey CPCP ñoo ànd ñoom ñëpp muy prestataire de Sénégal yi di wax benn kàddu. Mhm. léegi léegi ñan ñooy euh, prestataire de transfert d' argent. Mhm. na naka la euh, Ndeye Comba di nekkee prestataire de transfert d' argent naka lay demee exactement ak kan la. question importante. parce que le prestataire de transfert d' argent n' est importe qui. Mhm. c'est un entrepreneur ku nga xamante ne loolu ñëpp ñoo ngi gis ci réew mi jiitu réew meeg waa nguur gi yëpp na ñoom mënuñu def lépp mhm. dañuy soxla teg ay canevas rek léegi nag nit ñu ñoo war a jóg créer ay entreprise mhm. un prestataire du transfert d'argent c'est une entreprise c'est une entreprise c'est un chef d'entreprise créer entreprise am ñëw moo ngi def transfert d'argent day jaar fi ñu war a jaar yëpp ba créer entreprise am bu leer naa day ut régie de commerce prestataire de transfert d' te amoo document yooyu. Mhm. donc c' est quelqu'un koo xam ne ñoo ngi naan il est informel informel parce que entreprise individuelle la PME la am na ñu gën a mag ñu nekk sax. déjà di nga am entreprise da ngay am entreprise. Mhm. état xam la impôt xam la ngay fay say. Euh, CGU di fay yooyu yëpp donc di dugal dara ci keesu état bi. Mhm. en plus de ça di créer de l'emploi phase bi gën a important mooy loolu nous sommes dans un pays où la création d'emploi est un problème ñëpp état bi dafa taxaw ne mënuñu def lépp dañuy créer conditions yi naan ngay amee na classe bu toll noonu ñu créer ba créer lu toll ci soixante mille soixante dix mille emplois mhm. ñooñu bañ leen déglu erreur mënu ko weesu mhm. parce que ñu ñooy estature lu ñu naan l' économie du Sénégal bien vrai que ñu ngi leen di jël bëgg a wax ay informel ay lii mais c'est des gens connus, reconnus, qui font un travail exceptionnel, de rendre des services de qualité, de cotiser dans les caisses de l'État, de créer de l'emploi kooku bàyyi ko sax rek moo jaar. Hmm. déjà waaw pour nga nekk euh, nee nga déjà foog nga am sa entreprise boo xamante ne da ngay am këyit ak yëpp yu ñu hmm. reconnaître. Hmm. après processus bi nan la pour nga mën a bokk ci circuit bi. pour nga bokk ci circuit bi dafa am lu ñu naan les opérateurs xam nga transfert d'argent dañ ko organiser. nekkul lu dafa tëb tëb rek nit di def lu ko neex su doon kas cu kas bi fi nekkoon mooy jamono yooyu nga doon gis ñëw di dugal jot code dem xët comme noonu xewoon te mu xaw a xewi temps yi mu ne électronique ni ñëw. Mm-hmm. kas dafa am instruction bu ko lal. Mm-hmm. instruction boobu. Euh, BCEAO moo ko génnee c'est l'instruction treize de la BCEAO muy normé ne transfert nii la war a dem nii la war a mel soo ko soxlaa nga nekk prestataire ut say këyit gis ne dama bëgg a def transfert bi gannaaw ba mu créer plateforme am ba pare moom daf si rôle création la war a yem. Mhm. li mu war a def dafa am beneen acteur bu am solo si si circuit bi. Mhm. mooy les banques. les banques xam nga. Mhm. su ko demee dafa war a dem ci ay banque ay banques nag ñoo koy jël. téye produit bi banques yooyu ñoo war a agréé ki nga xam ne moo bëgg a def transfert d'argent dama lay jox exemple bu ndaw. gis nga ku bëgg a def ay Western Union ay MoneyGram ay yooyu. par force da dem ba banque. banque yi n'importe quelle banque wala. Euh, en général c' est n' importe quelle banque parce que dañu bu bu ñuy njëkk mhm. ñëw xam nga Wersene par exemple bi muy njëkk a ñëw. Mhm. CBAO rek moo ko jëloon am exclusivité mais loolu dafa tëb. parce que mhm. loolu xam nañ ne c' illégal. léegi banque yëpp pratiquement. ku ko bëgg ba nga ko bëgg en général mën na jul produit boobu léegi nag yow su nekkee danga nga bëgg a def nga dem foofu nga ut un agrément yow banque bi yow lay xam moom nga a am fa agrément am fa sa compte transaction yëpp di jaar foofu mën nga sax bañ a xam kan mooy opérateur bi. Mm. loolu la ñu woon si kaaw Wari. Mm-hmm. point bu am solo boobu bokk na si li fi jëlee Wari. parce que dafa jéggi banques yi. banques yi mm. aussi nangu ko ba ñu jouer le jeu. dem fan. banque di defal boppam. Mm-hmm. tijji benn compte. man maanaa naan prestataire la mm-hmm. keneen prestataire keneen prestataire la ku nekk dafa war a ñëw am benn compte si banque bi. opérateur bi am fa benn. compte séquestre bu nga xam ne xaalis biy transité parce que xaalis boobu di wër ki opérateur bi moomu ko. moom ay nekk am nga ci wàll. ay commission am rek la war a jël. commission parce que euh, certainement mus nga dafay envoi d' argent. Mhm. soo ñëwee dugg ne damay envoyé dix mille jamono yooyu nga fay sept cent franc. Mhm, gis nga sept cent yooyu frais yooyu. Mhm. moom la acteurs yi war a séddoo. maanaam ñi nekk ci circuit bi yëpp. moom daañu seddoo les 700 francs waaw dañ koy tas def sharing. Mhm. ñu ne ku nekk am nga pourcentage temps. donc prestataire bi tamit tuuti la ci am. pourcentage pourcentage prédéfini bu nga xam ne yow loolu moo la tax ba yow nga étudier ko ne ah lii kat su ma si duggee def temps de transaction def sa benn étude lii. je ma tendre mhm. à la fin du mois ma am si benn deux cent mille benn trois cent mille su nekkee damay luye euh, quelque part fay location fay internet fay caissière bi may jël. Mm-hmm. su ma fayee samay charge yëpp peut-être dinaa si dese benn soixante quinze mille bu nga xam ne mën naa ko jël. teg def sama compte mm-hmm. mais loolu. loolu moo yàqu parce que loolu moo amul parce que tey réglementation bi ñun soo gisee ñuy joox di yuux li ñu doon wax mooy ñu indi une réglementation adaptée xam nga type de contrat bi nekk ci transfert d'argent mooy problème bi. Mm-hmm. parce que c'est des contrats d'adhésion yow xam nga li ma la wax liggéeykat nga. nga def sa planning def dugg ci wenn liggéey. mais tu n'es pas sécurisé parce que le l'opérateur euh, grâce à type de contrat bi mu séq ak ñun dañu koy dénoncer fortement mm -hmm. opérateur bi contrat d'adhésion da ko da ko ma jox possibilité mm-hmm. moom saa yu ko neexee mën na jóg ne damay wàññi li ma la doon jox donc quelqu'un ki duggoon di jàpp benn cent francs laa war a am par par mm-hmm. par par par mm-hmm. kii par bu ñu léegi suñ ko jàppee di ko wàññi yow day am incidence yow. Mm. su amee incidence yow lan lay indi ay coono loolu moo xew tey. Mm. moo tax ñu bëri di fermer boutique. gis nga ko. Mm-hmm. ñi koy ferme mooy loolu mooy euh, tey jii dépassé nañu peut-être transfert cash to cash ñoo ngi si monnaie électronique bi nga xamante ne instruction huit moo koy kii. Mm. mais tey gis nga guerre bi fi am. Mm. ci ñan ci orange ci web. Mm. dégg nga ni ñuy baissé prix yi. ni ñuy baissé frais waaw ni ñuy baissé frais yi du dégg nga ko. loolu dafa am ay incidence pour attirer clientèle bi. Ah, léegi bi ñuy attire clientèle bi léegi yéen a si gën a yi ciy liggéey nekk des milliers. fu ñu wàññilee clients yi ay frais. Mm-hmm. ñoom ñoom dee nañu wet léegi nag loo ci gis. les points qui ferment qui ferment qui ferment la désolation. les points de transfert d'argent qui ferment ñu ngi ferme. ñoo ngi tëj comme pas possible gis nga euh, le nouveau directeur Orange Money bi nga xam ne génn na fi temps yi joxe sax benn chiffre. Mhm. ne moom plus de cinq mille distributeurs ont disparu loolu dafa sous-estimer le nombre. Mhm. ko peut ay chiffres mi mu am. mais ëpp na ko ñun xam nañ si dara. gaa yaa ngi tëj. di transfert di dem leneen parce que le business suñ ko revoirul je vous dis que transfert dootu fi am te coono dina amaat si dëkk bi ci client yooyu tey ñi xam ne ñoo ngi jubilé parce que gaa baa waa jàng leen di naxee 1 pour cent kii di wax 0,7 pour cent si gratuité lañ jëm gratuité boobu. bu amee prestataires yi. dinañ disparaître. Mhm. mais aussi clients yi dinañ am coono parce que gratuité boobu. c'est benn benn nax naxe mbaay la. Mhm. benn këppatal la bu nga xamante ñoom ñëpp dañu bëgg jël xaalisu épargne sénégalais bi yor ko di ci liggéey suñu demee nag ba rayante ba kenn des si kooku après lu ko neex lay def. lu ko neex lay def léegi xaalisu Sénégal yi nekk bitim réew ñu si càppaacoli sénégalais yi fii li ñu doon am entreprise yi tëj clients yi am coono. lu nekk intérêt réew mi te réew mi lii andi intérêt rek loolu la ñu. mais mais budget euh, il faut combien pour pour mën a nekk euh, prestataire transfert d' argent xaalis bu bari la laaj wala laajul xaalis bu bari comment ça se passe. xaalis non c' relatif. Mm relatif parce que y en a qui entrent avec un petit budget. duma lu sig na ba am na ñu nga xamante ne ay petit góorgóorlu am na ñu nga xam ne sax cinq cent 500000 lañ démarré. 500 000 am na 1 million 2 millions 2 millions 10 millions lu nekk am na sa dépend de la capacité de la personne. Mhm. mais nit ki da am am pour am somme mu daw. Mhm. mais wax dëgg yàlla ni ni liggéey bi bindoo woon ak ni ñu ko organiser. mu dimbale ko sax moom. Mhm. muy gagner quelque chose à la fin du mois. xam nga nit ki moom loo gën a investir rek gën a gagner c'est dans tous les domaines. nit su investir cinq cent mille un million mhm. mënoon na à se retrouver avec un cent mille un cent cinquante mille si dëkk bu am coono bi ñàkk liggéey ñàkk li loolu nekkoon na benn point de départ bu nit mën a jàppandu pour dem. mais mais mais yéen da ngeen doon gagné xaalis bu bari ci wàllum transfert d' argent est ce yéen yi dëgg la wala du dëgg parce que à un moment donné euh, ñu ne vraiment transfert d' argent bi euh, dafay joxe xaalis gis nga agence yi ni ñu bare points yi ni ñu bare est ce que da nga koy dëggal wala déet waaw wala déet avant ñuy ñëw ci problème bi nga xamante ni actuellement yéen a ngi koy jànkonteel avant doon ngeen gagné xaalis bu bari waaw wala déet. waaw mais xam nga euh, transfert d' argent comme c' est tous les autres comme tous les autres secteurs de la vie. vie économique comme commercant yi commerçant gis nga nu mu bëri. Hmm. ku nekk tijji na boutique fu nekk. am na ñu si nekk ay millionaire am na ñu nga xamante ne il tire le diable par la queue donc loolu moom. Hmm. képp kuy liggéey moom tu t'attends à gagner su amul woon gain nit ñi duñ si dugg. en réalité gain da ci amoon donc à un moment amoon na xaalis carrément. non sooy liggéey nga am hmm. sa xaalis. Euh, ñu am un commissionnement correct comme au début ni mu démarré woon effectivement tu gagnes à la fin du mois euh, sinon génn. la loo ci gis bi dem nit ñi demee ba nga xamante ne gisatuñ si dara ñu ngi siy génn mais loo taxoon ñëpp daw song ko parce que dafa amoon weccet mo cat bu ci am bu nga xam ne su rendre millionnaire aussi mën na la rendre indépendant nga autonome mën a yor sa bopp. Mhm. loolu moom. kenn du ko kenn du ko est que jàpp nga ne comme actuellement poste jafe-jafe yi nga xamante ni mi ngi koy euh, jànkonteel est que euh, floraison wu euh, transfert yi am na si part de responsabilité waaw wala déet. pour yow aucun rapport. amul rapport amul benn rapport parce mhm. que. Euh, wax dëgg yàlla poste moom li fa xew moom yan xab ngeen ko mhm. problème de gestion interne la yu nga xamante ne c' est le sommet de l' état war a régler loolu. Mm-hmm. il suffit de mais nee nañ choses dañu changé mm-hmm. la modernisation gis nga xaalis. waaw mais poste moo ngi existé moo ngi existé mm-hmm. partout dans le monde. foo dem ci àdduna bi feneen poste yaa nga fa di def le travail de poste di liggéey di. gagné mais dafa par rapport ak yeneen entreprise yi. non mais poste moo ngi dem fi euh, poste xam nga transfert d' argent benn pàcc bu ndaw la rek. bu nga xam ne poste sax mënu ko capter. parce que dëkk bu mel ni Sénégal en réalité yu mel ni transfert d'argent tel que conçu dafa baax pour ñoom est-ce que yow xam nga ni fii taux de bancarisation bi nu mu faible mhm. donc entrée du mobile bi opportunité la ba nga xam ne dafa tijjee ko mhm. au contraire poste moo ko waroon capté te poste amoon na mhm. possibilité boobu créé woon na transfert am poste finance poste cash lan moo tax doxul lan moo tax doxul pour quand toutes les conditions sont réunies am nañu les compétences am nañu capillarité bi am nañu xaalis bi donc c'est quoi c'est un problème de gestion am na boit yi gën a tuuti yu nga xam ne toll ni ñu pos mais ñoo ngi trouver euh, gain ci li ñuy def parce que liggéey bu sérieux moo fa am mhm. liggéey bu sûr moo fa am te loolu fu mu am rek di nga mën a xëcc mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ba jooni jooni daal di tëj ah belle question nga loolu mhm. euh, maa ngi la koy cabaxal tuuti ci kanaaw ci ginnaaw nii. Mhm. jooni jooni c' est le même problème su ma la ko waxee rek da ngay comprendre problème mu war yi. da comprendre problème c' est la même chose parce que jooni jooni bi mu tëjee. Mhm. ñun dañu génn ñu ne gars yi wari moo si tegu donc wari toll na c' était dix fois. Mhm. ou bien quinze fois plus grand que jooni jooni c' était colossal la wari su tëjee dina am conséquence yu dramatique. ñu génn ne leen lenn du waral coono yooyu lu dul lii ñu teg mooy li ma la waxoon. xam nga législation euh, instruction treize bi euh, suñ ko respecté woon à la lettre xam nga nan nga mën a comprendre ay Western Union MoneyGram c' est des boîtes qui ont fait cent ans cinquante ans. Hmm. ba tey ñoo ngi exister xam nga lu tax. respect des règles. dans un pays les règles doivent être respectées mais yow su nekkee opérateur nga. comme ce qui est arrivé ay Joni Joni ay wari dégg nga ñu ñu condamné fii euh, Kabiru à des milliards. Hmm. dégg nga ko donc lan moo andi problème boobu mooy. mais Bougane amoon na doole mais dafa jékki-jékki rek. chuté c'est la même c'est la même chose. parce que xaalis bi en réalité compte séquence boobu nga xamante ne moo waroon ne nekk compte entreprise man prestataire bi. Mhm. ma am compte bancaire si benn banque de la place bu nga xam ne dafa am ñoo may jox agrément opérateur bi signé ak moom kooku yor transaction financière yi kii yom si loolu opérateur bi loolu su amoon problème do mhm. mais li andi problème bi mooy. man damay nekk créer sama entreprise di def transfert d'argent tey moo tax ñu ne transfert d'argent c'est la méthode dóorkat bi ngay dégg loolu mooy dóor bu mag bi mm-hmm. parce que da ngay ñëw créer sa transfert yow banques yi seen laxisme ak seen manque respecter des règles ñëw permettre ma man ma tijji benn compte à mon nom mu nekk un compte personnel milliards yi transféré si trans xam nga lu mu toll mm-hmm. kooku am possibilité tiim compte bi nii mm-hmm. di tibb si xaalis bi di ko neexee di ko yóbbu di ko def si yeneen secteur di ci investir donc mu ngi jël xaalisu jàmbur di ko dugal feneen. loolu moo xew si jooni loolu moo andi problème mu jooni jooni. dañu jël ci xaalis bi. xaalis su prestataire yi nga xamante ne ñoo dugg si compte bi ñu siy liggéey. def ko ci ban doom oh non loolu moom xaw ma ko. Hmm? parce que man nekkuma foofu. loolu loolu moo fa xew. yow bokkoo si ñuy laaj seen xaalis ba léegi. jooni non bokkuma parce man dama bokk si association bu organisé wu RENAPTA. Hmm. ñuy jàngat transfert bi ñu ba gis dalatul suñu xel ñu dox toog suñu tànk dugg ci banque yi dugg mm. ci opérateurs yi wax fi ñu war a wax xam ne lii dalul suñu kaw ñu gis signes yi di ñëw mm-hmm. dañu wax gars yi ne leen hey arrêtez les transactions génne leen seen xaalis génne leen seen xaalis ñun waa Renapta ñun amatul sécurité ñun waa Renapta ñun moom képp parce qu'à un moment donné maa ngi leen invité woon ngeen koy dénoncé waaw ma ne képp ku si duggoon rek mm-hmm. xanaa Renata daf la wax ne la bàyyil nga bañ. Mm. kooku la si xaalisam dëgg. gis nga noonu mu dalee si Joni Joni noonu la dalee si Wari bi Wari demee ba signes leer ñun dañu ne arrêté la Wari ce n'est plus sûr seen xaalis dina fi des. Mm-hmm. ñu bañoon dégg seen milliards ñoo ngi. ñu ngi si biir mais man aw ma ci un franc sama morom aw ci un franc parce que loolu mooy njëriñu bokk ci groupe bokk ci. mbir mu nga xamante ne yéen da ngeen xam li ngeen di liggéey di déglu di saytu di dox li ñu war a dox loolu nag prestataires yu tey yi moom mooy prestataire yu bees yi da ngay xëy rek def mimétisme tijji sa commission sax doo ko xam. Mhm. malheureusement loolu moo ñu andil coono. mais mais est-ce daw seen xaalis ba léegi ci joon yi wala euh, wari est-ce que fay nañ leen wala. fayuñu leen non fayuñu kenn. xanaa balaa ngaa fayeeku sax nga gis soo fayeeku mhm. euh, donc gis nga fi le collectif des victimes de Joni Joni mhm. gis nga ko ils sont dit que dañuy euh, dugg dem en justice ñun affaire bi ñu amee en tant que association mais def nañ ci suñu rôle on a porté ñu tëb rek kii de on a demandé à rencontrer pour Joni Joni Bougane Gueye Dany il a refusé ñu dem euh, banque bi nga xamante ne moom la ne moom moo jël xaalisam li ab bi maa mhm. woowu ñu dem ba foofu gis responsable bi mu wax ñu noir sur blanc voilà ce qui ñun sax dañu yoreel xaalis bu bari ñu dem si yeneen banque bi si boppam wax leen ñu dem si yeneen banque de la place ñu wax ñu la même chose banque yu bëri dañu dem ba si yàgg ne arrêté leen opérateur sàngam banques yi organisé woon. Mhm. nañ leen arrêté leen opération yi ku fa amoon xaalis ñu delloo la sa xaalis sa compte loolu mooy rôle banque banque day gis ne kii les choses ne sont plus normales mu joxe avis ne arrêté. ces transactions mhm. léegi nag loolu su amul ñu bàyyi rek. Euh, mu nekk benn jungle bu nga xamante ne chacun fait ce qu'il veut ne fuuf xaalisu jàmbur yi utiliser say média di wax wala daw làqal ju di France mais mais mais moom nee na état moo ko doon xeex ba daal di tëj jooni jooni parce que il gagnait des milliards je voulais pas je veux pas m'appesantir hmm. sur euh, la personne de Bougane non mais techniquement yéen ñiy yëngatu ci mbir mi moo tax ma laaj li ñu la bëgg wax daal mooy que ne mhm. muy jooni jooni muy wari responsabilité nekkul responsabilité euh, bo seeni borom rek. Mhm. y a la responsabilité de l' état. Mhm. qui n'a pas joué son rôle. du régulateur mooy état donc y la responsabilité des banques te su ñu waxee responsabilité des banque wax responsabilité de la BCEAO. Mhm. tu sais combien de fois on a été reçu à la BCEAO pour di dénoncer lii di leen wax c'est des pratiques dangereuses pour l' écosystème ñu naan ñu di leen ci andi ay réponses noonu lañ toppee di ñu nax di ñu pousse di ñu pousse ba bulle bi éclaté donc. loolu hmm. c'est c'est des responsabilités avérées de la BCEAO des banque de l'opérateur hmm. ñun tout comme d'habitude nous sommes toujours les victimes parce que kan mooy dugal xaalisam ci système bi. yéenay gën nekk victime. mais prestataire rek mooy dugal xaalisam ci système bi. Hmm. clients yi ci perte presque amul. amul c'est si c'est infime. am ñoo xam ne seen xaalis tàkk na jotuñu récupérer. non non loolu da am na mais c'est infime. mais xam nga ko ciy perte ku ku nga xam ne moom mooy nourrir système bi. soo xëyee yaay alimenter sa compte def ci ay millions Hmm. imagineel ku def ay millions. ci compte am di transféré di xaar am commission di xaar di xaar nga jékki yeewu suba teel rek plateforme bi nga waroon dugg pour génnee sa xaalis. bloqué tëj amatoo ci accès amatoo ci dara c'est ce qui s'est passé. yóbbu sa xaalis comme ça. loo ci dégg mais mais lu tax affaire bi attaqué wu leen en justice ñu ñu comme ça ñoo ñu mën leen fay seen xaalis. non justice moom je euh, euh, euh, balaa ñi leen di attaqué en justice peut-être association yi mën nañ ko. Mhm. mais man bi ma doon jiite mënul sentir attaqué en justice loolu parce que pratiquement nekkuñu ci victime ndax li ma la wax mhm. on avait avisé mhm. on avait prévenu on a pris nos devants très tôt ba ñun une infime partie ñoo ci am léegi nag am na beneen collectif bu am na ñoom dañu toppoon seen yëfu bopp di def mhm. ñooñu déggoon naa ne ñoo ngi ñoo ngi st en justice ah mais pour ñu fay leen seen xaalis mais amoo yaakaar ni dinañ leen fay fay non ah peut-être parce que man euh, exemple bu gën a ndaw bi may joxe man am naa. Mhm. ki mu précédé man ki nga moo Siré Napata nekkoon président. Mhm. moom il était en bisbille avec la Wari. Wari de sa toute puissance bi ñu koy attaqué da doon tëj ay compte comme tey ni ko sama gars yi di defee. Mhm. mais dafa tëj compte bu président bi ak xaalisam. kooku attaqué ko en justice. gagné ko ñu condamné la Wari a mu koy fay. mais fay boobu ba tey sa fait plus de huit ans mënul jot dara mënul jot dara waaw donc da dem ñu ne la carrément ñoo la ëpp xaalis ñoo la ëpp lii léegi nag loolu sa pose mm. le problème de l'indépendance et de la fiabilité de notre justice maanaam su ma la déggee yéen euh, prestataires yi yéen risque bu nganda nganda ngeen di jël euh, pour def mbir mi non a bu énormément de risques parce que risque yu rëy ngeen di jël risque mënul weesu li ma la wax nii mhm. jël sa xaalis di ko dugal ci benn plateforme bu xam ne à tout moment mën na tëj à tout moment mën nga xëy rek dóor doo fa fekk dara comme ce qui s'est passé avec Johnny Johnny comme ce qui s'est passé avec et qu'est-ce qui va, va se passer demain avec ñi fi nekk parce que su nekkee dañu continuer ci logique de laxisme bi nga xamante ne ñoo ngi ci mais impunité bii am si justice bi jël tout son temps mais fan nañu jëm donc donc yow ban ban ban jàngat nga am ci guerre bi am ci diggante Orange ak Wave parce que Orange nekkoon na fi ak tarif euh, surtout Orange Money bi euh, tarif yu cher cher ñu gis ni Wave dafa ñëw kase loolu léegi gis nañ ni Orange tamit ñëw wàcce ay prime léegi yow ban jàng nga am ci loolu en tout cas clients yi ñoom euh, dañ dañ ko rafetlu mais yéen gis nañ ni da ngeen koy mbir mi àndoo leen si. waaw ah, non mënuñu see ànd. Mhm. te loolu maa ngi koy jéem a expliquer au début mais dinaa si ñëwaat bu gën a clair. Mhm. xam nga. comme ni ngeen ko waxee Orange Money moo fi nekkoon. Mhm. Orange Money bi muy ñëw ay wari la fi fekkoon. Mhm. ñuy def cash to moom mu ñëw loolu sax mën nañu c'est une révolution technologique. Mhm. kenn mënu ko arrêter parce que nit ki soo amee sa portable mën see def lépp. mun yomb lool wax dëgg yàlla dañuy comprendre yow ngay doxalee noonu. Orange Money bi mu ñëwee andi na méthode boobu ñi mu fi fekk ñoo waroon adopté wu en son temps wari mënoon na ko jéemoon na ko mais la ci yéex. donc euh, bi mu demee ba Orange dominé ko lay door a dem outil USSD e di jéem a mm. migré fekk c'était trop tard donc Orange gagné marché bi nekk fi presque en position de monopole. Mm-hmm. jamono yooyu ñun dañ doon am bis bi yu mag ak wa ak Orange Money ñun on on on nañ fi Orange Money. Orange Money yóbbu ko boycott deux mille sitting deux mille dix huit def ko fi lu lu saf sap te lan moo ko waraloon mooy position bi moom xam nga ce qui est bizarre avec Orange. Mm-hmm. wax nga ko. jamono yooyu orange mu ngi ñëw teg ay tarifam yu cher sax yu cher sax. Mhm. gis nga cherté boobu ñun victime lañ ci woon te dañ ko doon wax. parce que malgré cette cherté. Mhm. daawoo leen si gagné plus que maintenant. voilà léegi nan nga mën a comprendre orange xam nga lañ leen doon wax. Mhm. vous yéen li ngeen di def defa cher. vous demandez aux clients de l'argent te ñun xaalis boobu duñ ko gis non seulement duñ ko gis. mais bi ñu ànd ak ba tey. tous les ans ngeen revoir la baisse commissionnement au motif que dañuy perte. donc loolu moo nekkoon seen problème. xam nga lan lañ doon wax ñoom. Mm-hmm. ñoom dañ doon wax jamono yooyu dañuy perte. je me rappelle am na jour bu nga xamante ne dañu dem nekk dans les bureaux de Orange Money ñuy réunion ak seen staff bi. Mm-hmm. di wax di su euh, suñu sitting de xam nga lu ñu wax dañu ne écoutez nous ne voulons nga ngeen si ko mais actuellement la BCEAO est dans nos dans nos locaux en train d'auditer parce que dañu ne ñun dañuy perte. Mm-hmm. te suñu continuer nii ils vont la licence. loolu wax leen loolu loolu ñu wax mhm. imaginel kooku doon wax day perte mhm. doon fayeeku sept cent six cent si ay transaction mhm. kooku tey mooy fayeeku quatre vingt francs quatre vingt francs kon kooku doon perte jamono yooyu est-ce que dëgg la kon tey lu muy def day perte wala dafay xaru te loolu li ko andi xam nañ ko mooy le wave bi ñëw def une attaque bu nga xamante ne aussi c'est une attaque irréfléchie et non viable parce que lu tax non non c'est pas viable bi ñëpp gars yi nee nañ Wave c'est pas viable mm. c'est pas nañu waxante dëgg mm-hmm. Wave lu mu fi andi bi mu ñëwee wala yéen la arrangé wul yéen prestataire non même yéen yi arrangé wul si naka ah man ma doon fay euh, benn pour envoyer wala pour ma jot sama compte euh, cinq mille francs euh, orange dagg ma trois cent cinquante francs mhm. léegi sama compte su ma fa dugalee cinq mille su may retiré cinq mille laay jot loolu kay client bi pour moom tout tout est tout est ok y a ah, pas su nekkee si angle boobu rek nga ko gisee waa tout est ok waaw yéen lan ban lan mooy inconvénient foofu lay ñëw hmm. Hmm. parce que su ñëwee comme niñ ko waxee léegi man fu nit doon fayee trois cent francs fu nit doon fayee lii man fukki dërëm laa lay laaj mhm. mais dafa war a fekk loolu mu mun a soutenir politique boobu mais loolu su nekkee da nga koy def nga ñëw fekk fi benn écosistème bu nga xam ne dafa bëri ay maillon la bu nga xam ne chaîne la bu nga xam ne dafa bëri ay maillon ñu ñu nekk si maillon essentiel ñooy liggéey ñoo siy def suñu xaalis ñoo siy def lépp nekk des entreprises sénégalaises di fay ay employés mhm. nekk ay sœur jarbaat papa parents d'élèves mais ñooñu est-ce que client bi aussi dafa war a xool rek ne ah lii de neex na trop si man ñu sotti ma ko rek mais pour durabilité affaire bi est-ce que dina dem bi muy ñëw dañ leen ne lii du continuer la preuve yooyu bi muy ñëw gis nga ni mu duggee mm-hmm. bi muy ñëw dafa dugg làqatu andi xaalis bu bari kenn xamul fu mu ko jëlee di jox nit ñi ñu koy liggéeyal mm-hmm. parce que boobu ñun dañ ne lii mënul dem mm-hmm. bi mu demee ba client bi parce que client wu àdduna bi yëpp ñoo yem fanweer euh, juróom fukk laa doon fay téeméer laa doon fay ñu ne ma téeméer jaral na ko mu paas dem fay fukki dërëm boobu. Mm-hmm. mais loolu su amee tey ji problème bi lan nga si commencé gis mooy conséquences yi ma lay wax ni. Mm-hmm. points yi ñoo ngi tëj. parce que gajeetuñu dara mhm. conséquence bi moom mooy point yi euh, vrai yomb na neex na ah. mais yéen mais yomb na mais bëri dañuy fermer boutique mais incidence bi mu am si économie maanaam dinañ dem ba dootuñ am sax fuñ fuñ defee suñ ah, retrait xam nga fan ngeen di mujj ak suñ kii doo ngay wër ay kii wéer doo ko gis ay orange doo ko gis yow tu as tout da ngay commencé na de daa ngeen disparaître commencé na xam nga fan la ñuy dellu mhm. li amoon mandat kiy dem Louga. dugal ko si oto bi na ko yóbbul ma ma dem ba taxaw di ko xaar si télé. wala GP ñoom loolu mooy ñëwaat loolu loolu c'est un retour en arrière. nous parlons de l'inclusion financière. exactement mu am benn travail bu am solo gars yi di wax cashless société dañ si war a dem. maanaam yéen Wave da ngeen ci amul dara. Wave. waaw. xam nga nu ko tuddee. waaw le cancer du transfert. cancer du transfert dafay feebar la boo xam ne bi mu duggee si transfert ba tey. Mhm. moo andi lii yëpp am. même orange tey jii lii muy lappi lappi di dee. di di wàññeeku ñëpp di ko def. ñëpp parce que 1 pour cent bi mu fi andi ñëpp daw songu ko. bàyyi enjeu bi leneen la. Mhm. bàyyi ñëpp dem seen enjeu. Mhm. leneen la lan mooy objectif enjeu bi mais réfléchissons euh, yow Wave dafa ñëw ne la xoolal 1 cent laa lay demandé. Mhm. ne la sa paiement paiement de service bu nga xam ne. mosul gratuit paiement facture gratuit. tout gratuit tout te moom loolu mu lay defal gratuit. da kay fay da koy fay. bi ñu toogee ñoom laaj leen ne leen foo leen di jëleen seen xaalis yéen. Mhm. ay placement lañ ñu wax. mais loolu sax ça pose problème. parce que su nekkee toute l' épargne sénégalaise dañ ko war a jël dugal ko ci benn wallet de Circura qui n' est pas sénégalais loolu déjà nationaux yi sax dañ ko war a bañ dafa am domaine yu nga xam ne dafa war a am lu ñuy naan souveraineté waroo nangu ce peuple euh, vulnérable à ce point loolu ñu jël nii. am base de données Sénégal yëpp seen habitude financière nan mm. la ñuy dépenser nan la ñuy lebee nañ la ñuy lépp yooyu ñëpp c'est des fintech yoo xam ne fi muy mujjee xam nañ ko rek da ba benn moment ñu proposer ko xaalis bu bëri mu jaay base de données bàyyi lépp dem si defi leneen. dem defi leneen foofu rek ñu dellusi si rek si benn période bu nga xamante ne. on a fait cent pas en avant defaat trois cent pas en arrière. dellu ginnaaw bu nga xamante ne ça va être dramatique pour ñun. Mhm. l'Afrique. kon bu ñu continuer nii ak Wave. Euh, mais la preuve li ñuy def fii euh, li ñuy def fii doo ko gis dans les pays développés. Mhm. on te dira que non c'est des pays bancarisés et cetera et cetera. Mhm. mais pays am fulla en Afrique sax loolu am fii. dëkk kañ dañ ko war a téye nii xool di ko di xool lan mooy intérêt dëkk bi ñuy dox ci loolu déjà Wave li gën a grave ci moom bi mu ñëwee dafa ne moom son premier objectif mooy. gis nga waa Orange nee na ñoom quarante cinq mille points la ñu am. Mhm. Wave dafa ne quinze mille points la bëgg. la bëgg donc dafa war a éliminer trente mille points. tu sais c'est combien en termes d'emploi ça représente quoi. points. Mhm. points service nga dindi leen des jeunes qui travaillent qui gagnent qui font fonctionner l'économie loolu est-ce que am na njëriñ à la longue fukki dërëm yooyu di fay ñun tey jii. donc yomb na mais taux de chômage bi lay. gën a yokk yomb boobu mu am sax c'est c'est c'est euh, yomb boobu mu am entre guillemets lan moo andi frais de service yi en mhm. lan moo andi frais de service yi parce que prestataires yi bi ñu demee ba xam ne lii mënatuñ si liggéey c'est impossible ñu andi frais de service. sur surtaxé ko gis nga ñu client bi di si suuf yow du ñàkk nga dugg ci point. Mhm. di def transaction ñu ne la jox ma temps. exactement xam nga loolu jaaduwul. Mhm. mais parce que à un moment def ngeen ko te amoo leen si woon. mais xam nga lan moo tax mu am di di tegal tegal seen bopp. ay frais de service comme sax mais loolu mhm. tant que système bi revoir ñu ko comme niñ ko demandé xam nga bi mu amee loolu consommateurs yi ñoo njëkk a fëgg sur la table ñoom Biram ñoom Momar Ndao ñoom ma soxna kan c'est grand défenseur des consommateurs ñoo fëgg si table ne c'est pas normal dañ leen di attaqué mhm. mais ñooñu dem ñu demee ba organiser ndaje toog wax ak ñoom ministère yëpp dégluñu ah ARTP dugg si se dugg si économie numérique ñëw BCEAO ñëpp ñëw ñoom ñëpp je vous dis une chose ils ont dit vous avez raison condition yi si boppam moo inadéquat pour faire ak dañu war a refonder système bi revoir ko loolu nag ñun soo gisee ñuy xeex tey jii mooy loolu dañu bëgg loolu ñu wax mm. ñu dem jusqu'au fond parce que mënuñu bàyyi lii muy continuer su continuer xam nga lu fiy am anarchie désordre parce que je vous le dis clairement et je ne me cache ça tant que lii moo ngi am lu raw frais de service dina am. Mm. parce que indi nañ ko mais mën nañ ko revoir comme ñoom ni ñuy revoir seen seen seen kii yi seen seen tarif yi à la baisse. Mm-hmm. on peut revoir nos frais de service à la hausse pour adapter parce que du ñu nangu nag. Mm-hmm. ku fi ñëw nekk fi fii opérateur bi ngay ñëw da nga doon yolos yolos di dem soo demee ba taxaw ñun la ñoo la accompagner nous sommes des actionnaires de fait dans ces sociétés la donc du ñu nangu kenn ñëw rek. décidé comme yow ni mu ko waxee non ils sont nombreux que euh, quarante cinq mille la moi j'ai am hmm. au maximum j'ai besoin de treize mille ñeneen ñëpp dañu war a disparaître kan moo leen di may loolu ñoom kan nañu yàpp mayuñu leen ko duñ ko def ñun mais yéen lan ngeen bëgg exactement ñu bëgg c'est aussi simple que mm-hmm. li ñu bëgg la première des choses mm-hmm. mooy mooy li ñuy waxtaanee ba nga xamante ne finaliser rek moo des mm-hmm. ministériel buy réfléchir sur le transfert transfert du ay caaxaan c'est des milliards qui entrent qui transitent dans les points qui sont essentiels devenus amul coin recoin booy dugg ci Sénégal te doo leen fa fekk ñu faciliter la vie aux gens ñooñu tey jii dem nañu ba gis ne mhm. ñu bëggee liggéey bi continuer il faut ñu réguler ko il faut mu am régulation il faut mu am tutelle mmh. notre premier problème nous on n'a pas de tutelle ñun xamuñu si fan la ñu dépendre nous sommes euh, trimbalé. entre les mais da fi bëgg a jëlee Wave wala exactement lan la. wala da bëgg Wave yokk pourcentage am non non Wave bëgg xam nga li ñu bëgg mooy. waaw mu jeex ci Sénégal possibilité wu opérateur am la toute puissance. de décider. Mais, la mais, vie mais orange moo fi nekkoon am puissance bi Wave ñëw détrôné ko. ci non détrôné comment. c'est une guéguerre bu nga ah, xamante ne moo fi nekk mais xoolal est-ce yow yaay wax détrôné mais en terme de en terme de de de kii Wave xam na lu muy daj soo gisee tey jii ñoom. ni ñu duggaatee ci marché bi def des publicités à outrance def de la communication bataille la de xamoo fu muy mujj. Mm-hmm. xamoo fu muy mujj mais ñun bataille boobu lan moo ci suñu intérêt ñun lan intérêt dëkk bi lan la si ci deux deux euh, mastodontes qui se battent di dem vers la gratuité di rey di rey l'économie sénégalaise mhm. di andi lu nga xamante ne amul fiabilité amul viabilité loolu est-ce que dañ ko war a bàyyi yéen léegi lan ngeen fas yéenee def du ngeen organiser ay marche ay sitting nga si lañ dëkk mhm. xam nga ñun dañoo parce que vous êtes menacé mais ne dañoo ma ñoo ngi bataillé ba tey mhm. menacé boobu moo tax ñuy bataillé en quoi en résistant andi nañu frais de service on a demandé la venue de du patronat national te gis nañ ci wax dëgg yàlla ay avancé barki démb dégg nga Rijal moo ne di annoncé wu. Mm-hmm. am na yeneen partenaires yu nga xamante ne très sérieux qui sont en train de revenir mm-hmm. te ñooñu suñu ñëwee ay Optima ay Flash ñoo ñëpp ñoo ngi waaj a ñëw ñooñu ñu ñëwee xam nga lan la ñuy lan nañu modèle bu bees la ñuy andi. Mm-hmm. mooy un partenariat équitable. bu nga xam ne day basé wu pas sur des contrats d'adhésion mais sur des contrats synagmatiques yu nga xamante ne day préserver les intérêts de tous les acteurs mais jël kenn rek jox ko doole bi muy booma ko bu mu di décider di couper ay comptes xam nga Wave lu muy def ak mm, Orange mm. nit di liggéey ba si yàgg waaw euh, ñu ne la yow atteindre objectif yi la jox ñu couper sa compte maanaam atteindre objectif yi ci wàllum transfert ainsi de suite ci wàllum transfert couper sa compte maanaam dootoo fa am jël fa xaalis non dañuy jël sa xaalis yëpp delloo la ko ne yow liggéey bi waratoo ko def. delloo la sa la si circuit bi la si circuit bi. orange ne da ngay def frais de service dagg sa compte. Mhm. wala mu bàyyi la nga liggéey li muy def nii moo gën a graaw jamono yi orange. Mhm. orange dafa feebar parce que. tey jii moom fekk si ne Wave xeex bi jàpp na ko puus na ko ba. fekk si ne si mhm. fekk na ko si yow si système de commissionnement. parce que Wave à à à à l'opposé des autres opérateurs. yoo xam ne da nga doon liggéey say say commission nga koy jot. simili di ko jot nii à temps réel loo liggéey li nga am ñu jox la ko chaque jour soo wàccee xam ne gagné naa temps dugal sa poste loo ciy def nga def ko wéb da dajaleel sa commission di la ko dajaleel di la ko dajaleel ba fin du mois. ba mu door la ko jox donc da la transformer ñëpp en salarié. mu jox la ko léegi <laughs> ay salarié ngeen léegi xa léegi la def. Mm. xaalis boobu mu jël ko moom di ci liggéey di ci placer di ci def dara léegi yow indi nag ne yow soo soo atteindre résultat yi ma couper sa compte couper sa compte delloo la sa su nekkee da ngay def crédit service ma dagg sa compte orange aussi yow nee na day ñëw toppandoo ko moom orange moo ngi du couper ay da bàyyi nga def sa transaction ba jour bi euh, semaine bi jeex mu ne par semaine lay commissionné. Mm-hmm. ngay liggéey di liggéey chaque jour mu ne la gagné nga te sur la base de lan soo atteindre volume bi am nga temps soo atteindre volume bi am nga cinq mille. Mm-hmm. nga dajale sa loolu yëpp calculer man. fin de semaine war naa am quarante mille quarante cinq mille orange ñoo positionné le vingt huit mille. vingt huit après def si moins quinze mille pour commission indue. mooy laaj leen yéen ngeen demandé ñun laaj nañ ko amuñu réponse bi. Mhm. yéen journalistes yi tàllal leen seen loxo orange. orange micro ngeen wax orange lan mooy commission indue. indue. nit liggéey bay bëgg a dee <laughs> nga jël xaalis bi addu kalpe ko loolu nag mooy agression mhm. xam nga agresseurs yi ñuy tooñ ci mbedd bi mhm. ñu ñu bon lañu ñuy def baaxul mais orange c'est pire Oh, oui c'est pire que de l'agression est-ce que on peut continuer dans xam nga tubaab yi dañ naan la violence est fille de l'injustice violence dañ ko war a fexe nuñ ko éviter injustice moo am si dëkk bi ay jeunes ñu fi nekk di liggéey di daan seen doole di organiser hmm. ñu bàyyi ay gars rek nekk fii du def lu leen neex loolu dafa war a jeex quand même. temps bi jeex na Khalil Ndiaye ma bàyyi la nga tàggatoo. ak auditeurs yi ah da nga tardé yow tamit. <laughs> non <laughs> nga perdre vingt minutes. wax dëgg yàlla maa ngi siy jégalu bu baax. Mm-hmm, si mm-hmm, la mm-hmm. faute euh, suñu télé bi rek. mooy mooy li xew si dëkk bi comme ni nga ko waxee. da ngay mm. jóg war a ñëw mais y a des difficultés y a des bouchons partout. mais je crois que on aura une autre occasion pour parler de tous ces problématiques yu nga xamante ne daal mooy bëggoon annoncer rek gars yi ñun ñoo ngi si logique u bataille ba tey mhm. euh, annoncé woon nañ fi des journées porte fermées mhm. yu nga xamante ne danañ koy def euh, comme sa dëkk bi looloo fi xew ñun aussi dinañ def loolu incha allah. voilà ñu ngi koy remercier bu baax a baax Khalil Ndiaye nekk euh, président bu réseau national des prestataire du transfert d'argent nekk tamit coordonnateur du cadre euh, permanent de concertation des prestataires kon ñu koy remercier bu baax a baax ci disponibilité am di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ñuy bàyyi xel chaque samedi de 10 heures à 11 heures ak Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf.